yàlla jox ko ku rëy muy nit li yàlla bind yëpp nit a ci gën a rëy waaye li yàlla sàkk ci jaam yi yëpp julli moo ci gën a foor moo tax mu jox ko nit kon nag fa tabaarakallaahu ñi ngi wax ne bu ñu ubbee jumaa ji itam euh, kum neex na nga julee sa kër nañ na nga julee sa kër danañ ubbi nag waaye nag na ngeen jul ngeen toog seen kër yi ngeen julli toog leen seen kër yi ngeen julli ndax kenn ku ne boo toogee sa kër julli da nga am yoolu julli waaye ñi nga xam ne noo saytu jumaa ji nag euh, nga xam ne ñoo yore jumaa ak ñi doon taxaw jumaa ji ñoom moom danañ fa taxaw ñoom bëriwul waaye waaye nag ñi ngi ñaan daal ke ndax ndax euh, euh, niyatul mumin ablagu min amalihi parce que innamal amalu bi niyaat ni yoon yéene rek moo am solo yéene rek moo am solo tey jii boo doon yéene pour dem makkatal mukarrama nga dem dera ba ci gi bii di nga maam am ndok yàlla da la jox yoolu aj ndax yéene wun nga ko waaye tey jii ku yéene hi ne da nga mën julli ji jumaa yi ñeseen wala jumaa yi na Baye wala jumaa yi di nga am Touba yi nga am yéene nga ko rek même boo demul rek ordinateur bi dem na fata yàlla bind na ko yéegal na la ci gaay yi kon nag di ko waxaat danañ ubbi jumaa ji waaye nag fata bañ nga wax mbokk yi képp koo xam ne yaa sa kër nga jullee sa kër julleel sa kër julleel sa kër ñaan ñi nga xam ne ñoo saytu jumaa ji ñeeroon jumaa ji ñoom danañ ko def nañ ko daan defee incha allah kon nag yow yàlla fa tabarakallahu ñu ngi lay ñaan feebar bii yàlla na ko yàlla jëlee Sénégal jëlee ko ci àdduna bi yëpp nit ñi tiit nañ jàq nañ waaye nag fa tabaarakallaahu yow mi nga xam ne doo tiit doo jàq yow mi nga xam ne fa tabaraka yaa ñu bind yaa ñu bind li nga xam ne sax xamuñ ko fa tabaraka laaw dengoon nañ jëm ci yow xam nañ ne yaay kam yaay antal awalu wal axiru wa zahiru wa anta bi kulli shay'in alim jële fi tawar yi ak wéradi yi ak werante yi ak ak jubóodi wuku ak wax loo xam ne wóoru la yooyu yëpp jëlee ko fi boo ko fi jëlee mu jëlee mu jógee fi kon nag yow yàlla ñaan nañ la loolu di ñaan yàlla yàlla def ci réew mi jàmm. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.